boo yi ñu suivre ci Leewtoo TV dañ leen di nuyu rek ziar leen comme ni ngeen ko xamee nag tey dañoo jóg ci wàllum social ànd kook association bi nga xam ne Manga 2 moo ko jiite ñëw nag seeti mbër yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe maanaam wàllum wérad yi mu ànd ak ñi nga xam ne nii ñoom ñooy père Max Mbargane ay bëri na assurance Diop boo xoolee ñoo taxaw ni ak père Babou Manadze ñëw nag fi nga xam ne nii moom moo di kër Mouhamed All lañ ko jëkkee fii ci kër Massar presse bi tamit ñu ngi fi ndax gis naa fi Abou Ndour père baabu de mu ngi ci téléphone bi mais kon ma tourné ci kii rek sëñ bi maa ngi lay ziar. delloo ziar tur bi. Jules Souleymane Ndiaye. ban organe nga nekk. l' observateur laa nekk l'obs waaw. lii tey manque de initier ko ànd kook association loolu noo ko gis en tant que journaliste yow. rafetlu ko rek parce que euh, avant ñoom la woon tey tey tey bu demee ba àdduna demee nii moom foo ñu gëstu leen nga xam ne ku nekk mun na fi jaar tey ñoom la suba peut-être keneen la adduna amul solo Manga 2 daal lu mu def nii dañ ko war a rafetlu. am na solo daal. Mhm. waaw l'observateur a ngongu Abu Ndour ngi ne la Abu maa ngi lay ziar. ñoo ngi ziar. Abu Ndour bu dee média bu bu groupe Futurs Médias. waaw record waaw waaw. tey lii maa nga def nii ànd koog ancien gloire yi pour seeti ñi nga xam dañu wéré di mu jàppale leen socialement loolu noo ko gisee. waaw loolu xam nga nit moom. bu ngeen di ànd ba yàlla def ñoo mu am ñoo xam ne dañoo xaw a néew kii quoi du doole xaw a tëdd depuis un moment ñoom ñu ñu ñu jóg am am ñu ñu ñu woo seen biir ne kaay leen ñu toog waxtaan euh, jël si li nga xam ne la ñu la ñu yàlla jagleel ñu jël si dem seet leen jox leen si je pense je pense que de développement bi rek de de de lu lu baax la ci Babacar acte boobu noble la quoi waaw acte bu noble. Ndeye Coumba Fall Leewtoo point net maa ngi lay ziar. maa ngi lay dolli ziar jigéen nga ci làmb ji mais defe naa acte bi ban gis nga ci war a am. waaw acte bu rafet la xam nga sooy ànd ak ay nit ngeen bëree ba bàyyi bay lii moo tax ñu naan. Euh, war leen nekk ay at mën nga nekk adversaire si benn jour mais su jeexee rek jeex na lii wane na ko tey maa nga bëri naa ak ñoom noo bokk génération waaye yàlla def na tey mu nekk président association des anciens lutteurs tey am na si ñoo xam ne ñoom si seen biir dañoo tawat maa nga ñëw seet si leen nemmeeku leen jox leen ay teraanga loolu yëpp si làmb la waa am na Boucar bu Leewtoo bu lit TV <laughs> wala ma ne bu Leewtoo TV sax. boo ci wax rek waaw boo ci wax. ci loolu am nga jàmm. waaw sant yàlla ziar naa la. yow ngi si làmb ji tey lii maa nga def en tant que ancien gulwaar moom ñi mu àndal yow noo ko gisee. waaw lii daanaka ab sas la rek boo xamante ni tey ñoom dañuy dañ yaakaar naa mbëri ndaw yi wala ñu ne si làmb ji di yëngatu nii lutteurs yi nekk en activité dañ si war a jànge rek que ne luy luy boole la warul warul xaajale gaa ay adversaire lañ waaye nekkuñu ay noonu lii tey leçon la boo xamante nii ñun ni reporter yi sax la war nañ si yow Babacar war nañ si mën a jànge muy loo xamante ne boo xamante nii tey ñi war nañ ko mën am muy benn benn benn benn benn benn bloc boo xamante ni tey moo ngi koy cultiver si nit ñi waaye tamit journaliste war nañ ko cultiver seen seen biir waaye mbëri tamit war ko cultiver si seen biir mu nekk tey symbiose boo xamante ni képp ko gis wala nga dégg ko sax war nga ko mën a rafetlu duñ def dara rek lu dul ñaanal ko si jàmm lim lim si lim si mébét wala lim si am yéene yëpp yàlla yégale ko si jàmm ak salaam vraiment rafetlu nañ ko lu baax amin Bougar Ndour bu Lit TV maa ngi koy bëggee waa Père Manga ngi nii ànd ak Père Ndiouga Dia Rock Energy euh, ñu koy nuyu di ko ziar <laughs> assurance Malick Diop kooku li Youssou Ndour wayoon way wi ak Mbartine waaw Père moom duñ ko présenté kenn moom international la maa ngi lay nuyu Père ak Babou le grand manager maa ngi lay nuyu Père Manga maa ngi leen di fay maa yaa ngi maa ngi sant yàlla bu baax a baax ñoo xam ne yéen a bokkoon géew di bëre nekk ay wujj tey ngeen dem tekki seen ay ngemb ñu nekk xëy na ci ay difficulté wala feebar lañ ko mën waxee nga ànd ak sa association ñëw di leen jàppale socialement loolu lu lu ko waral ak lu ñu ci war a jàng tey. lu ko waral c'est pas une première ni une deuxième naka jeeg bu ñu sosee association bi dañu créer loolu di yóbbu nit à la Mecque pour wax la ne yóbbu na ñu mu juróom-ñaari nit màkk d'ailleurs am na suma benn màkk boo xam ne mu ngi fii si Tava Coor ci la demee màkk ndem si Yàlla Thiaw 2 et tant d'autres donc képp ku ñu dégg ne defa feebar dañu am ay moment yoo xam ne dinañu jaar ci moom donc comme ni ñu defee aussi euh, tabaski su jotee tuuti bu ñu am dañ ko séddoo ak ñëpp su nekkee dërëm ñu jox leen ko donc dama tukki yoon ça fait trois mois maa ngi ci àll bi ma ñëwee ñoo ñu interpellé ma wax ma ne dafa am ñoo xam ne dañu feebar bi hospitalisé woon ñu mel comme Mohamed Ali ñu wax ko ñu mel comme ñoom Pape Diop ñu wax loolu ñu mel comme Balla Beye numéro un Balla Gaye euh, Balla Beye Balla Gaye numéro un donc ma ne leen suñu amee jot ñu def une petite délégation comme temps yàlla ni ñu ko defee woon rek dem ci war gi Ndiaye def ko ko ànd ak ñoom assurance ak suma mag yi ñoom si tafancor ak booy Bambara ànd ak ñoom ñoo am loolu xam ne dinañ koy jox wétali ko ay jooy lañ fa jëlee parce que Boy Bambara defal langaamu assurance langaamu si tafa di jooy langaamuñu donc loolu moo waral tey comme jot bi bariwul ma ne ko nañu profité def circuit boobu yëpp beneen tey. mais ci lu gàtt rek xaalis bi moom maanaam fu xaalis bi di fu ngeen di jëlee xaalis bu ngeen di defee social boobu. xaalis bi c'est des œuvres de bienfaisance yoo xam ne ay nit yu baax ñoo ñu dimbale. nit ñu baax ñoo ñu dimbale ñu doon cotiser mais cotisation bi sax demewul noonu amoon na activité yu ñu doon dem aussi activités yooyu presque ça fait deux ans trois ans defuñu activité yooyu mais ñu ngi parce que dafa am ñoo xam ne dañ leen joxoon poste liggéey ñu seen poste donc ñu waajaat bureau bi mu ngi waxtaan pour def assemblée générale pour renouveler poste nit yooyu waaw. est-ce que état mu ngi ciy dugal loxoom ci lii. Euh, état bi léegi dugalagul loxoom ci lii mais am na ay nitu état yoo xam ne ñu ngi jàppale. waaw kon ñu bàyyi dugg si biir kër gi. je vous amul loo deful ci làmb kon nag soo demee ba am ni ndox ndox dab la war nañu même suñ ko amul dem ñaani ko pour ñëw indi la donc yéene bi yëpp mu ngi fii di la ñaanal yàlla yàlla jàppale la yaram bi. loolu moom tax ñu seet si la tey indi suñu participation waaw voilà ah ngeen wax dëgg xam naa ne moo ñu moo ñëw moom bett la moom eh, waaye eh, sant yàlla la parce que li moom yàgg yàgg yàgg nañu def lu mel nii lu tey yàgg na kon nag wax dëgg yàlla sa bu ma sa bu ma nekk hôpital ba opeere après maa ngi am kii kilifa ma woo mu ne ma xanaa président président dafa a ba tey jotuma la ma yónnee kër ga après kii dem baabu dem fa fa si génn yàlla da bëggee président baabu daal ni ma ak président baabu ni dafa voyage dafa tukki xam si àll bi daal wax dëgg yàlla lii moom yàgg ngeen kay def rafet na kontaan nañu si yëg gi nga yëg nii moom yëg ni moom wax dëgg yàlla moom eh, yàlla moo leen dafay li gën a doy mooy yéen ngi ñëw fekk ma jeexal kaayoon ba jàng xatma xatma xuraan bi fara ngeen yem si kon ndeysaan loolu mbirum yàlla la mbirum yàlla la yàlla fay leen seen coono yal yàlla jàppale leen lépp lay seen mébé ak seen yéen yàlla na ko yàlla mottali ak yàlla sallallahu alayhi keroog bu ma la waxee wax dëgg yàlla dama la ko wax rek nga daal di ma yónnee xaalis yaa ngi soog a ñëw waaye teew nga maa ngi dem dëj waaye daal ma yónnee xaalis loolu yàgg na parce que feebar naa fi ba entré fi nga fekk fi jël xaalis bu bëre jox boo xam ne dafa ne ma kii sama diggante yow la mais dootu affaire en moom sama diggante ak yow la kon nag wax dëgg yàlla yi ma defal yëpp daal man ma ko mënu ma taxaw di ko wax dafa bare kon nag yéen ñëpp daal maa leen di gërëm di leen sant léegi ñaanal jàmm seen bëgg-bëgg àddina ak seen bëgg-bëgg leen alxuraan bi ñu doon jàng nii léegi kontaan naa trop yëg gi dafa rëy ñëw bi nii rek tabaarakallaa dafa rëy parce que sama yeboon avant ba léegi maa ngi tëdd avant tabaski ba si le euh, si si le 20 juillet am naa hôpital parce que 25 jours laa am hôpital génn ba léegi maa ngi tëdd ah, maa ngi sant yàlla aussi wax dëgg yàlla eh, yëg gi dafa rëy dafa rëy daal wax dëgg yàlla kontaan naa trop sama jaay maa ngi eh, la di la balu àq aussi sama doomu ndey moom wax dëgg yàlla mooy dem kenn mënu ngaa béy mag sa du bisu dama koy woo nuy jokko wax dëgg yàlla président baabu na nga moom bisu bu yàlla sàkk mu woo ma ñëw na hôpital fekk na ma foofu seesi na ma budul beneen du ñaari yoon bu ne mi ngi may ne ma ko fan laa toll fan laa toll Eh, kon nag wax dëgg yàlla dañuy def lu mooy kontaan si yéen ah, sant leen yal na yàlla jàppale leen yéen daal yéen xam ne ngeen bëgg yàlla na ko yàlla defal yàlla mën na ko. dogguma la aussi. Ah. réunion passée wax naa ko CNG wax naa ñu feebar Alioune Sarr jël na ci note yaakaar naa ne fii ba ay fan dina yónni si fii su ma yónni siwul aussi dina yónni si ñeneen pour ñu ñëw seet si leen ndax aussi yëgu ko woon. ou bien su ko yëgee ni mu ko waroon a yëgee yëgoo ko noonu mais fardu na ci lool fardu na ci lool waaw اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره aussi kuréel bi bureau bi toog ne rafet na ñun ñëw seet si la seet si la du yow rek lañ ko jëkkee gis nga ni ñu doon def ak ñu fi nekkoon te feebar yëpp ku nekk jaar nañu foofu donc association bi nekk association ba ne day def des œuvres de bienfaisance mooy lii tey dañ lay seet si am loo xam ne su nekkee dërëm sañu teg ko sa loxo pour nga jàppale ko dimbale ko parce que gis na nga wax ne danga am rendez-vous rendez-vous yi mun loo fa dem te xam naa gàllankoor bi lu ko waral gàllankoor bi mais moyen parce que soo ko amoon di nga dem waaw donc ma ànd ak suma kilifa yi yëpp ñoom gis nga leen ñoom assurance Malick Diop ñoom Sitafa euh, ñoom Babou Naar ñoom Juga ñoom Barti ñoom ñëpp masque mbargaan mu waroon a jël parole sax wax ak nit yi ndax action yi yëpp gis nga ñu ñëw aussi journalistes yu ñëw yëpp sit yu ñëw yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant wax leen lii association yi moo tax ñu def ko soo déggee association des anciens lutteurs du Sénégal mooy lii ndax nit day mun day teex la kon nag su àndee ak nit balaa bii bëri na ñu mot ñetti yoon. Euh, ci biir loolu kon nag nit bu bëri ak ñetti yoon su ma amee dërëm yaakaar naa ne dërëm boobu bokk na ci su ma amee ñaari dërëm ñaari dërëm yooyu bokk na ci moom su amee dërëm aussi dërëm boobu bokk naa ci loolu mooy waral suñu tànk tey ñu seet si la. la ñaanal yàlla aussi. dëgg yàlla lii du tey ngeen ko def yàgg ngeen koo def ndax ànd naa ak yéen du benn du ñaar du ñett ñu defal ko nit dem nañ si dëkk yi fii ma Ndar fu nekk pour defal seet nit ki nga xam ni si nun la bokk wala si réew mi la bokk seeti ko te sax boo demee du mbër kon bi ngeen defee lu mel ni war ngeen ko def su ngeen ko defal war ngeen ko def alhamdulilah bi mu leen fekk ngeen koy def journaliste yi maa ngi sant ñëpp parce que lii ngeen de mooy liggéeyu lis su doon màng wala baabu wala juga wala ñooñu rek du sotti waaye yéen yi xam ne yéenay témoin bu ko xool ne gars yi seeti woon ñu diw ku loolu wax dëgg yàlla kenn mënu ko paase man nag feer wax dëgg yàlla bëgguma woon sax ku ma seet soo gisee may feebar di làqatu nii mel noonu la na feer def na si man deux ans depuis bi may bëre la ñoom ñëpp xam ne ci dara daan naa songo songo yoo xam ne sonn sonn yoo xam ne bokkuloon si bëre mais naa tappale tappale tappale ba génn si combat bi yéen ñëpp kii moo teew fii du benn komba du ñaar gis nga ko xëy na nag dafa dem ba mujj mënatul mënatul nëbbul daal ndax tey ma géej ko daa ma sax damay sonn fii ak kër ga danaa noppalu ko ñetti yoon ñetti yoon waaye loolu yëpp eh, si man lu muy sant yàlla sant leen si jóg bi ngeen jóg parce que it ñu baax ngeen naa ah. lii barewul ñu ko mën a am Sénégal barewul ñu koy am ci Sénégal kon président maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan yàlla lii yàgg di ñaan yàgg na sax ndax lu ëpp ñaar fukki at ëpp fukki loolu lu yàgg la kon yàgg na eh li may wax daal mooy maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yàlla xel mi ngeen am mu yokku rek di dem ndax lii xel moo koy doxal lii dëgg moo koy doxal te dëgg lépp lu muy doxal buñ ko jàpp rek du sotti kon nag du ma mën lu muy gërëm ñëpp man dund naa ba am juróom-benn fukki at ak ñeent presque fe bopp sax su metti si man kon su ma toogee ba yee lii di ërwé ma xëy na sant yàlla la waaw boo gisee amu si benn problème foo loolu laa ko jëlee ndax keroog may dem hôpital dama dem roi bu dee boobu boobu Moussa ngi boobu booba sama doom Moussa boobu demagul demagul fii la ma yóbbu na dem naa en Thiaroye lu mat euh, six fois dem naa Roi bu dee lu mat quatre fois mais man waa man feebar bu kenn dul xam lan la mënuñu wax lu leer rek fees nit na muy feebaree du xam lu ko jot du def dara lan mooy loolu ñu ne ma en tout cas da dernière laa fi doon ànd ak benn doom bu jigéen ak yuusu mi fekk benn ibaar mun ma jógal ma jóg mun ma taal ki jëlal puus puus ma ne ko bàyyil ma dox mu ne ma non boo doxee dañuy faj dañuy faj ba nga wér après daal ma yëpp ma ma ne ma am ku indi benn malaat ni ma mobilité la mu woo ko fii ni ko xajal kooku parce que yéen bi ngeen leen xamul leen xam nañ leen fii ñu jaar ba yegg si fii même bu dul woon dara sax kooku nun noo ko waroon a xeex ma ne ko ah loolu du dara bàyyil ma dem benn yoon rek ñu ma da ragal ma ne kom comme ma ragal aywa faraan nekk nekk nekk nekk nekk bay génn léegi nag def rendez di ñëw nii mais lii ngeen def si la première fois ma gis doomu aadama defal ko nit maa ngi leen siy gërëm leen sant yéen ñëpp du ma tudd turu kii bàyyi kee du ma tudd turu kee bàyyi xanaa ndey mi nga xam ne jigéen la ngeen ñaanal ko fanam gudd ñaanal ko yàlla may ko doom ju baax ndax lii mu def nii wax dëgg yàlla baax a tax ndax du moom rek moo fi nekkoon si jigéen du moom rek moo fi nekkoon si xale kon bu desee moom it nañu koy ñaanal rek comme nu ñaanal suñu bopp lu ma siy wax sant naa président bu baax ñu ngi lay sant ndax kilifa gu baax lii lay jëriñ kilifa gu baax day xam ñu mu xam nan lay dundee ak ñoom boo ñu gisee noonu la boo ñu gisul noonu la te amul benn waxtu nu ñëwee kenn si ñu taxaw ni lii wala le baabu si noonu ndax it wax dëgg yàlla li ngeen waroon a defal yaa koy defal moo li nga toog kenn du ko fi toog moom naa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla ñëpp feebar bi ma feebar nag xam naa biiram jot dana dañ ndax benn affaire mooy xaw a des tuuti rek waaye dana yombul dana dañ waaw bu dañee rek moo ñëwaat seen bi mel ni ma meloon du benn problème jërëjëf. dañ ne àll mëtt ñee matt ñu ne ankay ndax àll bi ko amul. kon buñ ne lu baax la dafa war nit dana xam lu baax xam lu war te du ko def kon dañuy gërëm ki ko xam di ko def euh, grand Balla Gaye nag da di grand boo xamante ne nii bu tëddee nit ñi dañ koy yëg surtout rawatina waa làmb ndax écrit bi mu yor yi xeebalul benn xale bés ko am bés da lay taxaw moo tax bi ñu tollee jëmi jamono kenn gisatu ko ci lañ laaj lañ moo ko dal ñu ne yaram wee sutante kon nag buñ dee def lu mel ni war a jóg luñ ko joxit suñ bopp lañ ko jox ndax dafa bokk ci ñun kon dañ koy ñaanal rek yàlla fëgg boppam euh, njabootam soxla na ko askan wi soxla na ko écurie bi mu yor soxla na ko kon nag bu ñu wooyee ci lu mel nii dañuy sawar ci jóg moo tax ñu ne nañ dajale li ñu am mu néew mu bëri ñëw seet si la teg ko si loxo te bu ñu tëddoon mu nekk sa loxo di nga ñu ko di ko defal loolu daal moo waral suñ tànk yi di ñaanit yàlla fëgg sa bopp nga mën a continuer say activité ndax waxuma sax ñun mais xale yi buñ sa yoon saa wu ñu jubal si caw ba ku ci daan dew laxasu fa ngay toog yaramu nit ñi day daw kon daal grand loolu moo doon suñu tànk yàlla yàlla fëgg sa bopp yàlla wéral la nga mën a continuer say activité noo ngonendoo noo màggandoo noo defandoo lépp kon bu mànga ñëwee wax ba pare dafa mel ne man dafa mel ne man la ñu fekk si ndax man maa man maa dëkk ak yow maa nekk ak yow di la ñaanal nga am wér-gi-yaram di ko ñaanal mbooloo mu jullit di ko ñaanal ñi ñu àndal ñëpp te xam ne àdduna amul solo yal na nu yàlla yàggal fii nuy defante lu baax foofu nga nekk suma porte parole. waaw <coughs> lii dab la. je pense que rafet na ñu toog waxtaan comme ni ñu ko doon defalee ñeneen yi waaw donc euh, dañ la seet si bureau bi moo la seet si ma ànd ak suma kilifa yi si dafa assurance njuga ñoom ñëpp ñoom mbaartin euh, donc max margan donc euh, yaakaar naa ne babu naar kenn di waxati waxam gis nga ko loolu mooy suñu tànk tey même barke démb barkaat démb ci réunion CNG maa ngi joxe nouvelle bi ne Pape Dóor dafa feebar Alioune Sarr wax ma ne ah maa nga il faut ñu jël benn bés boo xam ne dañ koy seeti waaw ma ne ko war na ko parce que déjà ñu suuxal làmb euh, suukali làmb la en tant que champion d'Afrique yaakaar naa ne su demee ba feebar CNG am na taxawaay bu mu war a taxaw ñu rafetlu mu rafetlu loolu lool jël ci note wax ma ne Manga dinañu préparer benn jour boo xam ne dañuy seeti le champion d'Afrique Pape Diop waaw loolu mooy suñu tànk tey euh, association bi nag euh, di la ñaanal ñoom ñëpp à l'unanimité wax ne Pape di suñu Pape la waaw surtout suñu kilifa rawatina suñu kilifa yoo xam ne ñoom lu ñu wax rek ci lu baax lay dem jërëjëf waaw donc yaakaar naa ne wax bi mënul soru parce que déjà comme feebaral dañ lay ñaanal yàlla rek yàlla yëkkateloo bu baax waaw. kontaan naa trop euh, ci ñëw bi euh, wax dëgg yàlla maa ngi wax ci kàttanu yàlla yeneen bi ne yow sëccëm bopp bi ma feebar bi dale it euh, xalaat naa la ndax yaay président kuréel gi. may sa vice-président ba pare doon sa porte-parole des anciens gloires du Sénégal nga yor ko yor bu rafet ñu ànd ci it ànd bu rafet euh, ñëw bi it bett na ma sax ndax dama def noonu rek xëy na boo ñëwee booy wàccee avion bi rek dangay ngay daal di jël si tafa jël euh, euh, assurance rek ngeen daal baabu ngeen daal di ñëw seet si ma parce que yéen bu ngeen ñëwee rek ñëpp ñëw nañu kon boo demee ñoom jugaak presse beeg ñëpp ñëw vraiment kontaan naa. Euh, dafa fekk nag ni yàlla bu la tegee nattu da nga xam ne nattu bi moo la ko teg moo koy teggi ndax ku dem ba dund presque soixante ans presque dépassé ko mosoo feebar alors bu la lii dalee da ngay sant yàlla euh, te ma kontaan kontaante goo xam ne gi amul àpp nag ndax euh, yéenay samay mbokk yéenay sumay xarit yéenay sumay waay lépp loo xam ne jëflante nañ ko rek musul ñaaw lépp lu rafet rek <coughs> jëflante nañ ko surtout man ak yow mii surtout ma ak yow waxtaan nañu lu kenn yëgul euh, defante nañ lu kenn yëgul waxante nañu lu kenn yëgul te loolu yëpp ci jàmm la ak salaam rek pour loo xam ne mi ngi defar mbooloo mi defar kuréel gi muy lu baax a baax a baax yow ku ñàkk ki ñaan ko ñàkk coxoon nga tey nit ku baax nga di wax assurance mi toog moom ak suma mën naa ni suma bàyyi mbaay ma jama jóob euh, am na lu mu doon ci moom mu doon noon doom doom rakkam doon xaritam doon nijaayam doon léppam moom assurance waaye salaam njagala sa sa doom alors euh, si tafa mi itam maak moom ñoo yarandoo màggandoo kon defe naa ni boo ne Pape Diop champion d'Afrique champion d'Afrique boo ko tuddee ana ko ko tudd euh, roi des arènes na ko tudd loolu yaakaar naa ne lu lu rëy la lu rëy la parce que nag sa roi des arènes ngi du roi des arènes nu nii rek déedéet ba muy métti nga ko am kon boo taxawee euh, ñëw doon sama njiit ci loo xam ne lii mooy kuréel gi walbati ko taftal ma ci sa ginnaaw walbati ko ne ma ak fu ñu mën di dem yaay sama porte parole loolu rëy la kon maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant nag maa nga ci loo xam ne lii dama noon danga may bàyyi ba nga toog ndax feebar bi bi ma dalee mën naa ne ñàkk naa ci presque lépp sept cent mille waaye bi nga xamee ni bii booba nag président Macky Sall yëgu ko bi mu ko yëgee dafa daal di dama toog fii rek tel euh, colonel téléphoné ma ne ko kan mu ne man aide de de camp président de la république du Sénégal ma ne ko euh, colonel ban mu ne man a colonel Ndiaye boo gisee ma woo président dafa yëgul woon sa feebar te def nga ci réew mi lu nekk doon nga champion d'Afrique def nga ay Jeux olympiques Munich 72 Montréal 76 Moscou 80 dem nga kanada dem nga euh, Égypte def nga Maroc wut fu nekk indi jël nga fay médaille taxawal réew mi kon moom ci jëm bopp xam na ni eh, am nga loo defar réew mi te mun laa fàtte waxuma la nag ma bokk ci ay militant ndax wax dëgg yàlla le président Macky Sall keroog bi ma aide de camp bi wooye eh, mën naa ni sax eh, wax dëgg yàlla ni ñu koy waxeeti mën naa ni. fooguma ko woon surprise la parce que wax dëgg yàlla euh, nit la koo xam ni kii vraiment fàttewul kenn su ma toogee aide de bi woo ma ne ma ah am na ministre bu fi toog de man kan la mu ne ministre ma Ndiaye mi ngi nii toog moo ñu wax sa feebar président jox na ko ndigal mu jox ma ndigal ne naa la yóbbu ci clinique boo bëgg ñu faj la fa wala bu dee Europe ñu faj la fa ma daal di euh, woo fi may bëgg a wax ma Ndiaye woo ma ni ma président de la république neen nañ la yóbbu clinique ma daal di kon ni ban clinique ni ma ñu ne ma clinique Rahma fële ci boori kër bee ci cun ñu yóbbu ma fa dama woon facture bi balaa ma koy génne damay nekk ba sama président ñëw facture baa ngi nii si fa man nga ko woon président Manga bi ñu ñëwee ñu jox ma facture bi mu doon un million quatre cent vingt mille nu yëkkatee un million quatre cent vingt mille facture bi moom la daal di waaw un million quatre cent vingt mille moom la daal di fecc saa si waaye mën naa ne la jox na ma lu ëpp loolu parce que neen na de tout le colonel bi ne ma président nee na da nga da nga war a toog faju te wax dëgg yàlla war a toog loxoy neen am na loo xam ne nii nag def na ko ci enveloppe ne ma neel colonel bi nee na président nee na na nga ko téye di ci faj fu mu jeexee nag nga laajte ko xam nga comme nag am njaayeen laa toogal te njaayeen dama bëgg xaalis du ma wax li nga xam li ma <laughs> te it comme nee na ma daal bu jeexee nga ñëwaat ma yaakaar naan daal fekk si ma danaa del na ko jeex na <laughs> mais daal euh, vraiment le président Macky Sall ak soxnaam la première dame euh, vraiment maa ngi kontaan ci ñoom trop di kontaan ci membre gouvernement bi yëpp di kontaan ci sëriñ su baax si fi nekk yëpp di ñaan jàmm ci réew mi ndax maa nga boo dee seet euh, pendant la campagne yaa nga taxaw ci digg euh, rond point euh, case bi ñun ñëpp ñi nga taxaw président la maa naan la maa nga jërëjëf maa nga gis naa la loolu du ay caaxaan ñun mbër lañu buñ ciment lañu bu ñu xasee tooy dañuy wow du ñu tricher ku ñu àndal yow la ñu àndal mais bu ñu àndal yow ànduñoo yow. kon de ànd boobu ñu ànd ak président de la république wan ko ne ko yow la yàlla dénk réew mi teyit lu baax li nga bëgg ci réew mi yàlla dina la ko may loolu moo tax ñu àndoon ak moom ci loolu ba tax na euh, président Manga euh, wax naa paala suma rakk ñoo bokk ndey ak ne ko wax dëgg yàlla euh, su ma dee dem wala suma ma dem wala lu may def yow yaay suma loxo bi nga xamee ni bi loolu paase na suma doom Jaga Jóob léegi la ma yónnee euh, billet Italie ak euh, invitation ak euh, visa bi ma war a dem toppatoo ji dama noonu loolu sax duma ko toppatoo ndax keroog ba ñuy dem Italie gars yi xaalis maa nga dem ma ne maa nga yow laa wax yow yaay toppatoo xaalis yaay wut visa yaay def lépp mu ne ma gis nga gis nga grand yow nag maa ne ko bu ma ne grand léegi daal nous sam di personnes visa yooyu bi yaa koy toppatoo keroog li mu ci ñàkk ci xaalisu boppam ëpp na cinq cent mille kon maa nga vraiment si tafa devant les témoins maa ngi lay gërëm di la sant di la wax nag ni la li nga doon sonn ci le président Macky Sall na nga ko gën a sonn li ñu doon sonn wook ci le le président Macky Sall nañ ko gën a sonn parce que tey waa waaye nga yor kayit sax di wut fu mu fajoo mu ko yàlla moo doxale ay mbiram noonu ndax itam wax dëgg yàlla jékki-jékki rek daal di ne lu lépp li war ci moom nañu ko def te ñun ñëpp ay Sénégalais luñ ca xam naa ni yéene boobu mu am ci man moom la am ci ñëpp. lii nag euh, nattu la rek jeex na ndax fi mu ne nii wax dëgg yàlla maa ngi tane bu baax xam naa ni sax bu nu génnoon ci biti boo ma dëbbee sol bootul dinañu bëre bëre bu rëy tey maa nga ba nga ma ramassé. trois appels nga mujjee. <laughs> non maa ngi fi ñu jaar naa yow. donc fi ñu jaar naa yow bari na. ak ah, si dama. kon nag euh, dama dama kontaan. bëggu ma woon a wax. dama dama mën. li la dal jombul kenn. jombul kenn yàlla la yàlla wéral. barke salatul fatiha. Pape Diop loo am tey sa mérite la. parce que da nga bëgg a mbokk. da nga bëgg a xarit da nga bëgg a doomi aadama. te da nga fonk enjeu gloire yi. Njaga Jóob xam nga kii nu mu tëddi sarak paala moom it wax noonu noonu la noppee ah lii nag lii la président defal ci xolam la ko jëlee defal la ko da nga ko mérité parce que fi nga jaar la am na ñoo xam ne jaar nañ foofu te amuñu ko am na ñoo xam ne ñu ngi hôpital te amul luñ fajoo mais yàlla moo ci boppam su lay su lay eh, su lay tàccul rek feccal nga sant yàlla bu baax lii nga nekkee di nga ci jógee lii nga nekkee di nga ci jógee parce que doomi adama feebar asaka la rek la ci kaw nit ku dul feebar amul te mag ñi dañ daan wax ne soo toogee fukki fan sa deret génnut ah. utal puso jam sa bopp mhm. nga jël dër boobu def ko sa kanam ndax am na loo xam ne moom lu la lay fanqal la ci kaw day bu baax a baax sa absence ci réew mi mhm. ancien yi dañ koy sentir ndax seen wéttal nga kon ñu ngi lay ñaanal yàlla wér yàggal la ci kanamu association bi yow association bi da nga ñëw fekk mu nekk différentes générations ñoo xamante ni seen i papa ay maam lu nekk ngi si mais ñëpp ay ancien lutteur la au lieu nga ni kii da nga boole ñëpp ëmb leen couvrir ñëpp lu la neex lu la naqari luñ la wax man mii gën a nekk xale su may waxee da nga waaye paala maay sa mag mais baal ma xam nga loolu kilifa moo ko mën kon aussi sa dem bi dañ la si ñaanal yàlla may la ci wér ñu féliciter la encourager la xamal ni la association bi ñëpp ñoo la bëgg ñëpp ñoom ñoo lay sollicité bi nga demee ñëpp dañuy sentir wéetaay ci association kii nag suma mag la bi ko affaire bii daal sax man ma fi waaye gis nga président Babou man bi ma ñëwee sax sama xol dafa tooy moo koy jël si suba yóbbu ci médecin yi moo koy jël si yóbbu ci sëriñ si mënoon na ne làmb rek moo nu boole mais bi ma waxee dana ma ñun famille lañu léegi Palla famille la ñu duma la ci xaar moo koy yóbbu fu nekk léeg-léeg damay ñëw rek. ni ko tey yendu leen fi mu ne ma baabu laa àndaloon moo ma yóbbu woon maa ngi nii mi ngi noonu di jëm këram léeg-léeg Pape Diop bu yebalee oto bi yëreem ci biir oto bi la koy sole loolu aussi ay valeur la yoo xam ne ay nit noonu la ñu war a ànde baabu ànduñu àndu dëkk Pikine ñu àndu làmb àndu mbokk la ñuy ànd ak moom rakkam la waaye man suma grand frère la loolu dañ leen koy seedeel seede nag ne association bi daal yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ci barke Cheikh Naama di ñaan ci doole yàlla yërmande rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak gàmmu gi nu jóge suñu yëf yi yàlla na gën a jëm ci kaw nun ñëpp yàlla nañu wér ndax koo gis am na looy doxaale yàlla bu ñu dara jotati te li wóor te leer mooy màng ki nga xam ni ki mooy euh, assurance Diop dafa taxaw wax ci yow baat boo xam ne bi baat bu rëy rëy rëy ndax bañ lay fal da nga ne ku yëkkati loxo ma bàyyi su ngeen ma jiitalee nag ma ànd ak yéen kenn yëkkatiwul loxo ñu jëla teg ci kanam nga ne bàyyi nag danaa jël Double Less teg ci diggante bi waaye Pape Diop laay jël teg ci digg wetu Double Less ndax dafa am lu ma ko nar a jox ñu dem ba ci biir ngeen mbooloo mi ndax d'accord ngeen ma def Pape Diop le porte-parole de tout les anciens gloires du Sénégal ñëpp jóg taxaw mu ne ma Pape kon mbir maa ngi nii kon yow lañu ko def te fu ñu demit ba ci kanamu président te it wax lii du yem fii ndax ñun tout les anciens gloires Sénégal incha allahu taala maa ngi la ko wax président dinañu dem ba ci président mu recevoir ñu mu ñu bokk toog sargal ko à part lettre bii ngay def ci kàttanu yàlla ak yonent bi maa la ñaan nalu tar ci barke baaba Babacar Sy gàmmu gi ñu jóge yàlla nañ ci demaat déwén yàlla bu kenn tëdd kontaan naa nag ndax am na ñoo xam ne ñu te boo leen ne Pape Diop sax dal dal na ko dañ naan déedéet parce que fi nañ may fekk may tëboon toog waaye lu wóor leer rek mooy yaram buy tooy dafay metti moo tax bi ma ne waa ana président ñi ne ma dem na Amérique ma ne président naa yoxoosu na ma waaye billaay bu ma yoxoosul woo woon balaay booy dem Amérique ca laay lang waaye nag xam naa ni euh, kontaan naa wax bi gudd na waaye wax nga moom bu ci Macky sàll de duggee di njiitum réew yàlla teg ko ci suñu kanam wax ba day gudd du wax ba du mën a gàtt lu toll njiitum réew ne la sénégalais nga may sénégalais muy sunu mag hmm. eh, may magam mu dellu doon père de la nation kon bu doonee père de la nation doon sunu baay kon xam nga ni yàlla rek a mën a séddale ma mag la nga wëlbaki doon sans baay xam nga ne yàlla rek a mën a séddale kon Macky Sall yàlla na la yàlla yonent bi jàppale eh, jabar jiit yàlla na ko yàlla gën a jàppale di wax nag Abdou mbay bu marché centrale au poisson gis naa coono yi mu daj ci man maa nga président Abdou mbay bi nga xam ni moo ne marché poisson directeur bi amul lu mu dajul boo ba léegi bi ma mekk dugalee euh, ci euh, clinique ba mën na nga ni jour bi amul suba mu ñëw ngoon mu ñëw ñoom euh, Thierno Ndom amul kenn koo xam ni kii des nga ñoom xam nga ne niti président la ñu. ñu ngi ñu ngi face ak kan Père ba tey defe naa bokk na ci ñu ngi seet. waaw comme ni ñu ko waxee sànq rek kër Faga do la ñu ñëw tey. nekk suma kilifa nekk kilifa ci association des anciens lutteurs du Sénégal moom tawaat mu feebar kon nag ni ko defee ak ñeneen yi noonu lañu def ak moom ndax suñu jaaree ci Mouhamed Ali jaar ci Pape Diop jaar ci Balla Gaye rafet na ñu jaar ci moom loolu moo tax ñu egsi fii tey euh, c'est pas une première que ñu def foofu képp ku mos a bokk ci association bi képp ku bokkul ci association bi te mu nekkoon ancien lutteur bu mag ci ñu xam ko mu nekk ci tawat dañ ko jàppale donc mun naa wax ne mbir yu bari fii yoo xam ne am nañu problème association bi jàppale na leen kon nag suñu mag suñu kilifa su nekkee ci tawat rafet na pour ñëw seet si ko loolu mooy suñu tànk bi ñaanal ko yàlla yàlla jàppale ko waaw moom dafa def jikko yi euh, association ancien gloire yi ndax bañ koy fonde xale la woon mu ngi nekk en activité mais dafa bàyyi woon xelam ci ëllëg luy yokk mbër mu bëri ba bàyyi bëri moo tax tey ji jógam ak taxawaayam du ñu bett ñun ñi nga xam ni jaaroon nañ ci waaye pas-pas bi mu daan bëree ak taxawaay bi mu daan wone ci bëreem moom la def itam jom jooju la delloo si ci biir diriger gi muy diriger ancien gloire yi chaque jour bu waxee ni damaa war a bàyyi ñu ne ko soo bàyyi mu tas ndax nit su fekkente ni da ngay jokk ak bokk di defar ay diggante di taxawu mbooloo te association bi ñi mu yóbbu màkk bari na association bi waxuma ñi ñi ci bokk dee wala ñi ci bokk seen doom dee waaye ñi nga xam ne dañuy am seen askan bés boo xam ne bii gàcce daf leen cee nar fekk li leen association bi wallu dafa bari tey jii am na ñoo xam ne ñu sax dañ daan wax naan duñ ci bokk waaye saa yu ñu feebaree moom ci xolam bu laa biir ak yaatoom xam nga mbaal laaw dina jàpp jën boo bëgg ak boo bëggul moom daf koy lancé laaw ci biir géej gi rek ñëw xool ku ci bokk ci bokkul waaye danaan jaaroon na ci bëre te kon nag nit bu fekkente ni bokk ngeen jëf-jëf su néewee doole wala su jaaxle su ko jaaxle dabee wallu ko rek moo war loolu moom mooy jikkoo mànga eh, magam yi ko dal nag ñoom alaaji si tafaak sunu mag eh, alaaji eh, assurance Malick Diop dañu doon ñoo xam ne ñi lépp lu rafet dañ koy fiddi di te di ko taxawoo ndaxte màng rekk mënul dara li taxit mànga rekk mënul dara dafa doyloo ñu wóolu leen gëm leen dëggu seen diggante ak ñoom ak ñi mu jiite nag ñëpp ak ñi mu jiitewu parce que mal affrontation wala mal parler bëggul ñu koy wax ci ci bokk ak ci ki bokkul kon dafa yemale ñëpp nag cere nag su tooyee buñ ci defee laalo ak ñeex day neex a fas moom nag noonu la mel dañ koy ñaanal kay gudd fan tey ñaan yàlla itam association bi nga xam ni lu ci nit di roy moom nga koy royee mooy loxo képp koo xam ne kii yaa ngi yëngu ci làmb te bàyyi woon bëre tey wut taxawaay wala ngay wut lu dundalaat làmb ci moom nga ko royee ba am li am ba des mooy pas-pas ak dëggu du asam la ñu yilife waaye dafa jël assurance bi nga xam ne moo ñu mag jël si tafa jël ma jël duuba jël mbay gay jël ñëpp jël Souleymane jël Ousmane Ngom jël mbay ja Diop alors seen taxawaay ak seeni xel mu natt ko waxtaan ak ñoom ñu wax ko la leen gënal la leen gënal ci biir mbooloo mi la leen gënal ci ñu mën a defar mbooloo mi ci xel defal mbooloo mi ci yar defar mbooloo mi ci ay teggin taxaw itam mbooloo mi ci lépp loo xam ne seen seen yitte la alors di leen joyanti ban ancien éditeur nga ñëw léegi mu ñëw ci buntu làmb di xuloo wala muy xeex wala muy rëcc euh, jàppante loolu yëpp ci fexeem ak xalaatam la parce que nit su fekkente ni da ngeen bokk ndab lu ngeen di lekkee war nga lépp loo ci yéene ci ndab li mu doon lu baax ndax lu baax man la cee fekk ndax sa loxo ngi ci biir ndab li kon dañ koy gërëm te di ko ñaanal yàlla moom ak magam yi nga xam ni ak nijaayam yi nga xam ne ñoo ko encadré ñu bokk di doxal lii di ko ñaanal di leen ñaanal yàlla yàlla guddal seen fan te dolli leen wér ak barke di wax ni tam e waa këram di jabaram Thérèse dafa doon jigéen boo xam ne bi ci sunu soxla moo ko mën ci sunu biir dañuy toog bay na mu toggam sunu toggee suñu ñëwee dañ koy fëgg wax ko sunu soxla mu togg la nu bëgg a tegal ñu yaa ngi dégg su demee Joal lépp lu ma xam ni ñu masaan dem Joal wala bu demee Joal bu ñëwee dañ koy xëccoo suy dem lu ci da ciy wut ay barca ay barca barca barca teg ko li mu ci jublul lépp loo xam ne lii rek eh, war naa neex ñun ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak Manga suñu xool man cee sedd parce que loolu jàppale sa jëkkër ak bëgg sa jëkkër ak doon jigéen ju baax moo koy def yal na yàlla dundal ko itam te barkeel ko yal na yàlla sàmm mbooloo mi te def ci sutura ak xéewal Manga nag duñ ko duñ ko duñ ko sant dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal yàlla parce que eh, mënuñu ni nu gën xel mënuñu ni moonu gën lii waaye moo nu gën jikko ci ay fan li mu mën a muñ ak li mu àttan ak li mu nangoo dépensé ci ñun individuellement ci du ñun ñii di ànd ci biir bureau bi sax def ko ciy def ci luñ dul yëg ci bett la ci sa soxla wala bett la ci sa jaaxle wala bett la ci sa pas-pas loolu nag loolu boo amee rakk walla doom walla jarbaat mu doon sa doom nga war ko yónni muy dem ba pare mu taxawaloo yooyu tànk eh, baax na jikko waaye jikko encadré kenn gënu leen yal na yàlla def ci jàmm ak barke ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ali na ko yàlla wéral dem ci suñu père Balla Gaye Ndouroumtine yàlla na yow wérte jóg jóg ak suñu papa Pape Diop Boston yàlla na wérte jóg ak suñu père Faga yàlla na wérte jóg kon daal ñu ngi ñaan képp ku wér di na nga wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nag ci initiative président Manga 2 ànd koog ñoom père Max Mbargane suñu père ñoom si tafa coor ak ñoom assurance Diop ak Mbartine ñëpp ak père Pala ak ki nga xam ne mooy Ndiouga Dia ak le grand menacé président baabu Père Manga tour bi ngeen def nii tey maanaam bi mu jeexee loo yëg non lu ma yëg suma yaram yëpp dafa daw ndax soo amee sa morom sa ay nawle ngeen doon def benn yëf benn po nga dem ba gis ne ñii dañu texle feebar sa yaram day daw am mbégte lool je rends grâce Dieu et kontaan ci yéen yéen yéen a xam ne yéen a ñu accompagner pour gisal loolu seen bopp donc yaakaar naa lii mooy àdduna te lii mooy association aussi ñii dañu mun ñale duñu mun am ay conseils yu baax nag lu tax wax ne am ay conseils yu baax dafa am ay suma mag yu nekk suma gannaaw yaa leen gisal sa bopp lu mel comme El Hadj Sitafa Thior lu mel comme El assurance Diop yoo xam ngeen ko euh, Babou duma ko waxati parce que baabu suma doomi ndey la donc ñooñu yëpp. xam nga déjà Ndiouga Dia fu mu taxaw nga xam ne kooku nit la Max Mbargane kenn du waxati yëfam parce que yëf bi yëfam la mbartin kon yaakaar naa délégation bu ñu def rek dafa doy pour woon suñu morom yooyu ne ñoom ñëpp ñu ngi ci suñu xol magre comme par exemple absence quatre mois bi ma def ni ko waxee que sentir nañ ko maa ko gën a sentir parce que soo taamee yëf soo demee ba ñoo ñu nga doon fool ñu nga doon bërël di kaf ak ñoom yaakaar naa ne dina am lu la manqué mais je rends grâce à Dieu di gërëm aussi ñoo xam ne foofu laa nekkoon États-Unis ñoom Xaadim Conteneur seen association mënuma leen fay parce que chaque vendredi ñoom ñu jël si ci kër seen kër yi ñu dem seen kër jabar yi ñu togg togg sénégalais boo xam ne moom la ñu bëgg rawatina les week-ends le samedi dañu def ay tournois du football ay ghanéen ay nigerien ñu ñëpp du jeu ay damier foofu donc je pense que sénégalais yi lu ñu def foofu lu rey la maa ngi leen di féliciter parce que mënuma jàpp ku nekk di tudd turam mais su ma tuddee xaadim continuer rek tudd naa ñëpp maa ngi leen di féliciter di leen remercier bu baax a baax di remercier suma mag yi di leen remercier yéen ñoo xam ne yéen la presse <clears throat> nangu ànd ak ñun nangu waxtaan ak di ñu laaj nii ñu ngi leen di gërëm di leen sant. léegi man li ma lay laaj rek parce que lii nii parce que man li a marqué si mooy bi ñu demee si Mouhamed Ali dem ci Père Balla Gaye Ndour yaa ngi Mouhamed Ali damay rappelé seen combat bu mujj dafa metti woon trop kon tey xale yi ci toll toll ci jamono ji di bëre est-ce que adversité bi duñ ko yemale ci yoon bañ ko yóbbu ci mbirum animosité. non je pense que Mouhamed Ali combat yu mag yoo gis bu metti bëri nañ ko amul lu ñu deful ba gars yi ñu bëri wax ne maa nga dafa soor mais soo xoolee bu baax moo gën a nekk suma xarit tey bala bala Gueye amul lu ñu bëriwul ñu ngi wérante woon ci oto bi ak euh, ménagère baabu mu ne ma quatre fois ngeen bëri ma ne ko non trois la ñu bëri mu ne ma non daan nga ko trois fois ngeen match ni benn yoon donc loolu te gis nga ambiance bu ñu def Pape Diop daf ñu gis rek wër laa mun a wax hmm. parce que gis ngeen yuuxu yu mu yuuxu donc euh, c'est un plaisir pour man nit feebar ba pare mu egsi ma egsi mu def ko mu mosul feebar donc ñu leen di ñaanal yàlla yàlla jàppale leen. xale ci toll loo leen di conseil ñu toll ci takk ngeen dañu xam ne lii abs de temps la mbër yaagul donc ci abs de temps bi waruñu noonoo dañu war a nekk ay xarit pourquoi dañu war a nekk ak xarit xarit kenn su amee million moromam moo ko jox. su mhm. nekkee moom rek mënul am million. kon nag su amee cinquante millions sa morom moo la ko jox nga wax ko jox cër respecté ko tey su ma amee dix francs Euh, Ali contribué na ci dix francs boobu Pape Diop contribué ci donc dama leen war a fonk donc dañu war a fonkante seen biir nekk ay nawle xam ne lu ñu def sport la sport su jeexee jeex na. tey dafa am mbégte boo xam ne moom laa fekk ci Pape Diop ndax Pape Diop su feebaree xelam ñëpp nekk ci président des anciens lutteurs yàlla def mu tukki le président de la république dégg ko ne jël leen Pape Diop yóbbu leen ko ci clinique bu mu bugga toppatoo ko faj ko kon je pense qu'aujourd'hui tous les anciens lutteurs du Sénégal ñu ngi gërëm le président de la République ñu ngi koy sant bu baax a baax ci taxawaay bi mu taxaw et c'est pas la première fois le président de la République di taxawal euh, di taxaw mbër c'est pas la première fois jabaram taxaw mbër kon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax wax ko ne lu ñu def ñu ngi koy gis mais aussi association des anciens lutteurs du Sénégal ñu ngi ko ñaan audience mu recevoir ñu mun a toog waxtaan parce que ñu ngi ci gannaaw jërëjëf